vraiment ñu ngi rafetlu euh, liggéeyu force de l'ordre parce que euh, permettre nañ à un maximum de sénégalais tey ñu vaquer à leur occupation ah, rawatina tey ci fii ci Dakar mhm. parce que quand même mënuñu nekk un jour de semaine ñu war produit produire war a euh, continuer di renforcer sunu économie ñu bëgg a complètement déstabiliser déstructurer suñu euh, suñu suñ suñu réew mhm. pour juste des yoo xamante ne amul bopp amul genn donc encore une fois dañu war a euh, ñu delloo si waat xel yi xam ne c'est vrai mën nga opposé wu mais opposition aussi dafa war a nekk une opposition républicaine. ah rafetlu nga euh, euh, perturber complètement le pays. Mhm. Euh, pour des fins personnelles. parce que rek am nga une certaine ambition nga bëgg a paralyser tout un ah, pays. là vous me parlez vraiment c'est regrettable là vous me parlez a de ah. l'ambition pour un pays. là vous me parlez d'un homme vous parlez des leaders de Yewwi Askan Wi mais bu weesoo seen jëmm ay nit ñoo génn topp leen déglu leen par rapport ak ce qui s'est passé hier il y avait une grande mobilisation tey aussi même si c'est un peu c'est isolé ci yenn gox yi sañ que ne am na sénégalais yu koy suivre li ma bëgg wax mooy par rapport ak euh, yooyu noonu yéen ban message ngeen ci mën a décortiquer opposition bi nga xamante ne moom la ñu am c'est c'est c'est inédit au Sénégal mosuñu gis euh, irresponsabilité bu bu toll fii comment ça ci politique au Sénégal on a connu tout type d'opposition mais li mel nii mosuñu ko gis. neexul leen rek ñuy génn. non ah, mosuñu ko gis parce que nit ki da ngay xool d'abord l'intérêt de ton pays. parce que booy opposé wu c'est pour demain gouverner le Sénégal. Mm-hmm. mais kaw ma ne un président de la République di nga nangu euh, tey ñu paralyser sa réew surtout nag ñu nekk ay réew yu néew doole wala rattraper suñu gap ci suñu économie euh, nga nekk fii bëgg a réew mi pendant deux jours trois jours parce que juste da nga am benn procès boo xamante ne c'est une affaire strictement privée nga war a dem wuy ji juste nga bëgg nee non man balaa may wuy ji il faut ma taal réew mi. mais li ma bëgg a wax mooy chef franchement. dafa nekk loo xamante ne dañu koy mhm. regretter. Mhm. vous êtes des ah, hommes politiques te te te te opposition bi ñu gis c' est une opposition vraiment euh, irresponsable du ñëpp nag. Mhm. mais ñi nga xamante ne ñoo génn tam wax ba wax les jeunes là ñu génn encore une fois tey ak suba c' est vraiment irresponsable. Ah, te loolu rek lañ ko mën a. d' li ma bëgg a mooy.